Koutra Aïcha man xalaat bi ma si am en tant que jeune dama gis que ni euh, bi ni jeunesse dañu amee désespoir total boo xoolee fii ci Sénégal parce que tout le temps politiciens yi ak euh, yenn hommes yi nga xamante ni ay nit ñu màgg lan dañuy toog di wax si place xale yi te xamuñu exactement lan la xale yi bëgg. Mm-hmm. wala lan la xale yi manqué ba di ko dem di wuti feneen c'est-à-dire ñoom seen yite leen leen la waroon nekk mooy dem consulter xale yi. xam exactement lan moo nekk seen jafe-jafe lan moo nekk seen bëgg-bëgg lan moo leen manqué pour que ñu mën leen ko indil fii Sénégal tegal leen ko beneen bu ci topp mooy que ni xale yi xamalu leen exactement c'est quoi le Sénégal Sénégal lan ak lan ak lan la am ci richesse yi nga xamante ne ñun waroon ko mën a exploiter suñu bopp instant bi nii boo xoolee ci benn côté mën nañu wax man peut-être man mën naa am désespoir ci sama coté mhm. parce que mën naa ne samay moroom ñi ngi dem di jàng à l'étranger. Mhm. comme par exemple doom ministres yi di jàng naka lañ mën a exploiter pétrole nga xamante ne mi ngi ci biir Sénégal ñoom ñooy bénéficié wu ci pétrole boobu noonu ñoom ñooy bénéficié wu ci xaalis boobu noonu ñuy génne fii ci Sénégal. Mhm. man ëllëg du ma am euh, cest à occasion boobu la opportunité pour mën a bénéficier ci loolu. leneen li mooy que ni man damay lancer benn message muy que ni jeunesse bi waroon xoolaat bu baax mag yi baax yi nga xamante ni ñi ci biir dëkk bi parce que boo xoolee majorité bi ñi nga xam ay milliardaires la. Mm. kenn nekkul dem di immigré ji di liggéey dëkku jàmbur pour mën a indi si dëkk bi dëgg que ni rafet la nga dem liggéey feneen indi. rafet na mais dafa gën a jekk nga toog sa dëkk liggéey fi am fi li nga fi am jëriñoo ko defal ko sa waa dëkk ñëpp xam carrément kenn kii def na ci lii sa à dire benn exemple laa lay jox bi nga xamante ne mooy Baye Djili mbay Baye Djili lu bari def na ko ci Louga te Baye Djili nekkul ka nga xamante ne day nekk di tukki di dem di liggéey foofu noonu pour mën a indi au niveau au niveau de luga te li nga instant bi ni boo xoolee Louga tabax na fa pale ba nga xamante ni amul kenn ci Sénégal ki nga xam osé na taxaw pour tabax palais boobu noonu ci dëkkam Baye Djili demoon na sax ba bëggoon tabax aéroport fële ca Louga mais daf dañ ko bloqué ngir lan ay affaire politique genre yooyu noonu pour bañ ñu leen sous-estimer comme par exemple ay président du ma fi nekk di tudd. ñoom Sidaat. waaw non waaw <laughs> ce sont en fait ñu leen di ñu leen di bloqué pour ñu bañ a tabax aéroport ak yeneen ak yeneen. d'accord euh, keneen keneen ki mooy que Youssou Ndour mi ngi nii exemple tey jii ko waxoon moom tey li mu am nii nii nii yëpp dina ko am du gëm mais ngëm-ngëmam moo ko may li mu am tey. ñun war nañ xoolaat suñu bopp xoolaat jeunesse xoolaat fan la ñuy teg suñu tànk pour mën a avancer. en tant que jeune lan nga jàpp ni jeunesse bi moom la amul fii wala bokk loolu lañu ñu manqué bay dem di ko uti. Euh, en tant que jeune man li ma jàpp. ci lan la ñu manqué. ci lan moo amul. ci sama côté. Hmm. mooy que emploi amul. emploi amul. soo waxee emploi amul dama lay jox exemple cinq mille emplois yi nga xamante ni euh, président Macky Sall gouvernement Sénégal jox na ko jeune yi. Tata Aïcha. gis nga 65000 employés noonu dee ko dégg rek. non dem naa couvrir ko. mën na am yow nga gis. bi ñu koy bi ñu koy bi ñu koy bi ñuy bi ñuy joxe résultat yi moi j'étais là-bas au stade. 65000 UCG UCG. AGETIP AGETIP ay formation yu ñuy maye. et j'ai vu beaucoup de jeunes yu nga xamante ni ñu ngi def témoignage ni que état bi moo leen jox liggéey donc soo waxee liggéey amul état bi mu ngi def ay ay jéego. te yow di di joxe ay moyens pour xale yi liggéey. ci sa côté jàppoon ne affaire dafa féete boor. féete boor ci naka. Ah, damay bëgg ñu waxtaan parce que xale nga. bëgg xam li nekk sa bopp sa moroom yi lan la ñuy ressentir bay jël gaal gi di dem. sa à si sa côté jàppoon ne affaire dafa xaw féete boor parce que instant bi ni Sénégal boo xoolee mën nañu wax que ni Macky Sall joxe na 65 000 emplois pour jeunesse bi pour ñu mën a liggéey mais man ci sama côté gisuma ko. ku ci liggéey 2 mois 3 mois da ngay bàyyi parce que liggéey bi dafa métti benn nañu noonu UCG moo gën a métti liggéey yi nga gis fii Sénégal. Mhm. agitib xaw ma ñoom la lañuy doxee mais UCG boo demee mbedd yi ñi ngi balal tout le temps ñi ngi nekk si naaj bi gars yi ñi ngi taxal ak yeneen ak yeneen cest dafa am yoo xamante ni danga nga koy def mais sa sa sa fulla ak sa fayda sa ngor moo tax nga di ko def mais doo ko def ak courage c'est-à-dire dem ba da ngay manqué courage pour mën a continuer continuer continuer domaine boobu beneen bi si mooy que gis nga suñu géej gi ñu am tey boo demee ba gis mool mool mm. nga xamante ne mool la muy dem di immigré ji ne man Europe laay dem léegi pour liggéey xam ngeen kon nga xam ne Sénégal yàqu na léegi mm. parce que ay bateau ñooy ñëw si biir Sénégal di napp suñu jën yi ñu am cest à ñoom li ñu nappee jën yu baax yëpp mm. très jën yu baax yëpp li ñu jël yóbbu ko bàyyi ñu fi ay weccit ay yu sew jën yu sew ñi nga xamante ne ñun doyewuñ ko dara mm-hmm. kon espoir amatul fii ci Sénégal mm-hmm. c'est-à-dire bi war nañ xoolaat bu baax a baax ñan ñoo ko soxla ñu jox leen bu ñu xool kenn ni Aïcha mii nii kat ñi ngi ci biir gouvernement bi cinq doomam ñi ngi ñi ngi jàng wala cinq doomam soxla nañ liggéey am ñu liggéey ñu xool Aïcha xool xool xool euh, comment il s'appelle encore. Euh, tonto Kajoor xool Sidaat moom aussi ñu ñu ne ñoom ku si nekk nañ jël say doom dugal leen léegi ñoom ñoom ku si am say xarit ñëw indi ñu jéem leen jox emploi. man jàpp naa ne ni problème am na si côté boobu.